Bougane Gueye Dany nee na waaye tam ma ngay wéyal combat am yéen a kaay bi média bi turbine moo ma ko daal di xamal naan man saafara lépp luy jafe-jafe sénégalais waaye itam seenu bëgg-bëgg ñu teg ko ci table bi jébbal leen ko lii nag moom moo di bëgg-bëggam ak xalaatam te du ci tàyyi du ci sonn sénégalais yi seen yaakaar yanki ku del si waat mooy yitteem tax na dina mobiliser bépp énergie moom jiital gëm sa bopp di sàkku ci nguurug Sénégal nag mu xoolaat bu baax a baax condition yi nga xam ne noonu la ñuy dencee nit yi ci biir kaso bi ndax ñaaw na ko dijee naan kon sa kaddu wax loo xam ne mi ngi raam te jëm bi te bu fa Abdou Ba ma nga naan bor bi daal moom daanaka attanuñ ko diggante subvention yi ak recette yi nga xam ne mi ngi daal di wàññeeku yu douane yi réew mi mi ngi dem daanaka ci guute goo xam ne maar day taali sud ko dañee naan man kàddu yi ñu ngi ko yëkkati ci campagne bi fukki fan ak juróom yoo xam ne gars yi dees na ko campagne ngir daal di yey sénégalais yi yey seen nopp yi wax leen la nga xam ne mooy seen programme ak bu demee assemblée naka la lu toll ci téeméer nëbb ku ci nekk nag bëgg a nguufaan ci xam ne moom moo fa ëpp en tout cas yey gi moom gaayaan cay def lu ne les les éco yéen kaay naan kon sàmm sa kàddu moom dañoo dal ci kaw président Diomaye ak Ousmane Sonko naan leen bor yi nga nan ko ci ayu président Diomaye gii toll ci junni ak téeméer ci ay milliards ci juróom-ñaari weer ëpp na bor gu bari gii Sénégal attanatu ko Sénégal nag war saa si tembe fay boru juróom-ñetti junni téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay milliards diggante deux mille vingt mille vingt sept ñu war a ñaabar ñaabari nag subvention yu courant gi tàbbi géej subvention hydrocarbures yi tàbbi géej denrée yu première nécessité yi tàbbi géej lii nag di war a andi seen yokkute kenn mënu ci dara 24 heures yéen a kaay nan man waxtu woowu moom président Diomaye Day ma ngay wax nag ay priorité am naan am am gi nga xam ne am nan ko sunug suuf si des na ci bay suñu waar jéem a nag joyanti industrie agricole gi fexe ba la ñuy jéggaane bitim réew am suñum réew entreprise turque yi nga xam ne mën na def seenug loxo ngir joyanti chaîne de valeur bu réewum Sénégal ci wàllu mbay mi dikk leen réew mi quotidien naan maan président Diomaye kay dafa dem ba Turquie daal di fay nekk avocat bu secteur privé l'indépendant naan moo tax it axe Dakar ak Ankara daal dinay dëgër këcc ba maar day taali Dakar Times naan kon nag waxtu woowu jàngale kat di nekk ci réewum Sénégal mer nan ba futu seen ndajeeg waa fonction publique ci nërmeer la daal di mujjee gaaya mer nag ba maar day taali yéen kaayib des média bi naan kon fekk si Birahim Seck mi nga xam ne ma ngay interpellé Cheikh Tidiane Dieye ci benn nag marché yaa ma neex goo xam ne def nañ ko ci ndox mi fii ci réewum Sénégal doon polémique nag la ci jëflanteel gi Cheikh Tidiane Dièye di jëflanteel ak Sino Hydro lee fa yéen kaay naan kon moom Birahim Seck diggam ak Cheikh Tidiane Dièye jokkoor maa jóg jokkoor leen la Birahim naan kon ma ne la marché bii na ngeen ko joxee dafa jaarul ci yoon moom ministre bi naan kon say laaj nag yenn saay dafay mel ni kuy tuumaal nit dangay laaj ñu tontu la waaye laaj bi ànd ak tuuma moom kenn xamu ko Birahim naan kon dama ne am na communiqué boo xam ne ngeen ko ngir tontu waaye tontuwul sama laaj bi te laaj bi yomb na marché bi yaa ma neex la am déet bu dee nag laaj képp nga ci jublu kottu jegeel Fonsis di nga xam lu baree bare ci marché bi le point ak ci naan kon booba Jean Baptiste Tine ma ngay andi ay coppite ci police bi ay coppite am ci cybersécurité ca brigade des mœurs waaye tam te division bu communication les écoles yéen kaay naan kon waxtu woowu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci BTP bi nooy waat nan Descos nag daal dinay dakkandil suspension bi mu amaloon ci yenn ci tabax yi ñetti weer ci ginnaaw ñetti weer yoo xam ne gaa yaa ngi dund jaxaan na ma diggante cimentier yi géomètre yi peintre yi fi mu toll nii nag mën nan ñaabar ñaabar yéen kaay bi naan man delluwaat ci seenug liggéey fa yallaahu waxtu woowu l'observateur xamal ma ne am nag drame boo xam ne amati na ci wàllu màngaan gi fii ci réewum Sénégal ca ñoo joor la amee lu toll ci ñaar fukk juróom ci ay xale faatu ci téeméer ak ñaar fukk juróom daal di cay rescapé génnee ca gaal ga gaal ga nag ma nga doon départ jëmale Barça ay soxna ak i mineur nekkoon ci biir gaal gi maire bu John Ward ci andi ay gindi ak leeral waxtu woowu yéen kaay bi naan man gannaaw ba seen malade faatoo agressé ci hôpital Fann jël matériel ba saax saaxee ko yàq ko ba maar day taali moom professeur Moussa di porte plainte ndax ñaawteef yi nga xam ni def nañ ko les ko nan man ci États-Unis benn sénégalais moo agressé ab chauffeur bëggoon sàcc ab bus ñu ne déeta waaye mu bëggoon fóon ab xale bu jigéen fi mu ne nag ma nga ca kaso ba ñu koy laaj ñaar fukki junniy dollar ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm